baax waaw man la Abdoulaye Gueye gars yi ngeen ma xamee si Laye Samba waaw Laye Samba Laye Rossi hmm. loolu dëgg moom man moom Laye Rossi ma gën a xamee moom Laye Samba Laye Rossi ndewa waaw ah Laye moom du kenn moom lu xam rek ku simple rek naka xamul naka rek comme neka waaye njëb moom parce que man moom Bañul moom moom daal ñëpp suma waay leen xam nga moo tax man comme suma ñëwee Bañul nii léegi moom comme la dëkk kóotu waaye wala moom dinaa waaye fa nekk la dëkk Bañul suma ñëwee Bañul dama ne ka jaay suma kër maam Hill Street teg foofu gaay doo la ñëw nag si booy toog Dobson toog Palang Street léegi-léegi sax ba suma jógee Afdaay sax damaa leen naka waaye fujaral jaal wan la sax jaal wan loof tamit léegi-léegi wala kenn Street du ko tamit au moins jaal one voice jaal mantel xam nga rek man fu di waa Banjul moom ñu moom suma waay leen moom waaw yee ñëpp moom suma moom guddi moom muslim moom damay nekk am mantel moom waaw pej bi waa Banjul moom xam rek comme fu nekk ne am na seven years ma la woon anniversaire bi waaye comme benn night dama toog xam nga rek maa ngi amee sama laptop bu ndaw bi di browse ba ay boori two three noonu xam nga parce man time boobu moom guddi gi moom xam nga mooy li teel a teel a ew so benn night ma ne xam nga waaye ma ibi page waaye tamit xam nga woon comme nu ma ibi ban page so night boobu noonu ma ne dama ko ibi de waaye after amoon idea comme naka tur bi ma woon naka waa suma problème so ma night boobu noonu la ma cancel ko waaye da following night same night bi daal la wax ne def da following night tamit xam nga man nekk di browse tamit xam nga rek waaye tamit still now amoo si idea ban tur la moo nekk waaye ma ne naka ma fay suma laptop so ma tëdda kon lu ma tëddee daal affaire si daal ñëwee comme man daal comme gënte la ñëw si man xam nga tur bi waa Banjul soo man tam noonu laa jógee waat rek taal sama bi rek laa rek crier picc bi nag soo ma eewu gis gars di adante xam nga affaire si daal booy noonu la ñëwee daal si man daal comme gënte la rek non comme la ñëwee si man rek na gënte la ñëwee si waatee rek taal sama laptop rek crier picc bi nag artiste nag sama fenn Facebook bi ñeneen tamit ñeneen tamit jël ko wala at gaay soo noonu la ñëwee daal pej boobu dama ko créé pour waa Banjul yëpp moom pour ñu ñëpp gis seen bopp xam nga pour fàttali ko démb tamit xam nga suñu amee dara daal boo ñu pos ko fa suñu amee comme amee ay dëj def ko fa ñëpp ñu ko gis xam nga parce que léegi daal yëpp li ñoo def yëpp fi lañ ko defee léegi naka waaye soxla mi tamit man dama lay eewu sax gis gars yi pos lu bari léegi yeneen président comme yeneen comme ko mën a laay dem seet yeneen yëpp eh, pour bañ la ko ibi woon daal bañ yëpp gis sen boppa lo am rek nga def ko fa nga advat xam nga ñëpp lo am dal pour bañ la daal moo taxoon dama li lifin ko wa créer ko non amoo si benn income mom amoo si benn income mom légui légui sa gis nga ne right now sa so soo gisee na xam ko fa page bi mi nga am ben li fi mo fa def advat mo fa def koku mom wa bañ la man xamako sa sax musuma ko gis musuma ko gisante waye dama gis ne comme compagnie xam nga rek wa bañ la rek mané xama jabalé ko dafa ko free advat waaye mosuma see lekk xaalis moom waaw waaw du yee xam nga rek xam nga fii rek moo naka mooy loolu daal waaye ma daal moom dama ko ibile pour frime noonu moom waaw yee mooy loolu rek comme comme naka dee ne daal comme affaire xaalis mu si waaye day fi xaalis ne ko si daal saalewul naka nga xam na loolu parce que moom tamit waaw mu na sa yokkata comme affaire yi waa Banjul page bi waa Banjul page bi man foog naa laay nga ne ñaata yées am démba chef bi man foog naa démb am six years bu ma bokkee yeah six years yeah loolu la 2014 laa bokkoon waa Banjul waaw waa Banjul comme lu say di wax ne mooy loolu boobu noonu mooy loolu bi pour ma dimbale ko rek xam nga moom lébu la waaye lébu mun a wax la understand nga léegi waaw mooy loolu bi comme am na ñu ko accuse xëj na moom jot na si wàcc sax moom xam nga rek xëj na muy naay sal ak yooyu noonu waaye ñun dégg nañ sax comme si for nañ si ay wéyu béy ne comme laay fay nañ ko dañ ko dee fay am na ñoo xam ne dañ koo fay pour mu dugalal la xam nga lu ma la wax nii na moom su ko dugalee si la moo gën a am comme si la moo gën a nekk highlight wala yooyu noonu understand nga and non jubluwu si woon loolu xëy na lu doon ko ko yëpp pour unity la woon rek understand waaye soo xoolee waa Banjul foog naa am nañ 17 kii ah ñaata followers la am ay nearly 17 18000 ah yeah boor yooyu noonu waaye nga gis ne ok waaye di nga gis ne yëpp tamit nekkul waa Banjul am na ñoo xam ne waa Kombo am na man am na si friends yoo xam ne xam naa ne ñu ngi waa Banjul waaye tamit restrict wuñ ko waxuñ ne comme ku nekkul waa Banjul la di si join understand nga dafa diverse so yeena yuñ si dul entertain rek xëy na mooy comme political yi xam nga lu ma la wax nii because yooyu noonu daf dee cause am nga yeena kéewu si an bëgguñ ko so da gis ne jokes xam nga soo may jël si opportunité bi sax di joxe saaraawut comme ñu si gën a participer understand moom laay ak xam nga rek suñ broda Sana Sarr moom moom surtout moom xëy nañ ne xam nga dina xaw boring ak yooyu noonu waaye moom bàyyiwul benn time understand nga so moom any time rek any little chance bu mu am rek daf day contribute lu bëree bëree bëri si si page bi waaye wax dëgg ne yàlla page bi waa Banjul man as far as man I understand kii daf si income free amu si xaalis no revenue wax dëgg ne yàlla yow li nga laajte noonu am solo trop understand nga because xëy na du pour yow sax wala moom du pour moom moom day mbi lay understand nga wala ñun ñu ko because man xam naa si dara xam nga lu ma because man def na ma admin so xam naa yu bëree bari yoo xam ne mu ngi mu ngi go on si page bi understand because man sax groupe waa Banjul yaa ngi jëli te moom moo ma ko def yaa ngi understand waaye tamit pour ñuy seetaan xam nga lu ma la wax nii ñu déggee ko from the horse's mouth am na am na am na importance trop understand nga li nga laajte noonu waaw it it it is very very important. laay comme dama ko jox saaraar rek bu baax a baax because xam nga rek comme lu ko war a inspire ba war a def loolu noonu wax dëgg yàlla man comme waxtaanu cee waxtaanu ma cee moom after bi mu ko defee. because man jël na ma time sa pour ma understand ne moom moo ko créé toon after bima ko bima ko bima buma démé ma demee understand né mom la won wa xamna né tamit comme comme mom si yuyun non la dé do understand nga because idea bu bu fantastique la non lañ ko mëna a so gisé like wa Banjul ñi use social media ba dole YouTube yo man yo. yow na nañoo nek friend Facebook understand nga man ma mom fana ñu gën celebrate How ma years bu ñu nekkee friend xawma 9 nine understand nga wa nga gis ne comme lolu idea bi amu dara lu ko gën xam nga ba paré mu yombalal ñuko ko mu nekk ko xamne ne tamit ku xomb la duma ko lifin comme suma koto la suma big bro la understand nga waye comme do dé té la understand ne mom lay mo créer mo créer page bi mooy comme ni la ko rewé ñun ñoo dëkk South waye man after two three years la door understand ne wa Banjul bi was created by Lay Samba yaa ngi jëlee waaye loolu comme dañ koo rafetlu rek wax digané ne we are still grateful xam nga luma la wax ni dañ ko dañ ko santé ba tey xam nga rek so xoolee comme eighteen thousand members yooyu noonu eighteen thousand members yàlla traité ko man tey suma su gaañu woon understand nga ok because su ma ne suma mbokk because comme like su dëj amoon tey man ma si ñoo xam ne dañ koo war a dañ koo war a yëgle one time su ma ko defee waa Banjul rek yow soo ko jotee rek sa néew si jot nañ ko understand nga su ko keneen jotee rek dafaa yomba like comme su leneen amee understand nga comme sport comme yenn activités yi yoo xam ne ñun waa Banjul dañ a chia understand nga a nekk loo a waxee yooyu noonu waaye tamit xam nga rek suñ gisee gisee nen rek ne nen xam nga loolu moo gën a correct tamit let's give due xam nga rek let's give respect where it's due understand nga comme ni ko gars yi di waxee xam nga lu ma laa ni su sax du ma seet ne waa central nga wala su doon waa Tabacourou ñoo moo ko def because affaire yi nekkul waa Banjul South nekkul waa Tii Road nekkul waa central waa Banjul la so da ngaa gis ne comme from Pamasin wala mile two bet down after yi ñun ñëpp si bokka understand nga so mu ngi am yeneen groupe admin soxorut nekkul moom kenn rek moom moo nekk admin bi man admin la am na yeneen admin yoo xam ne man xam naa leen xam nga ñu ngi dëkk feneen understand nga fu soo ñoom Ibrahima Diaw koto ñu ngi leen a nuyu understand nga gars yi nekk si diaspora bi nga xam ne bàyyiwuñ groupe bi benn time understand nga so dañ koo sant di ko gërëm rek because suñu créateur lu mel ni xam nga assembly wala comme pinche boo xam ne ñun ñëpp dañ cee foyee di si am phone xam nga di si amee information xam nga ak jamono bi nu mu demee so di nga tamit so xam nga ngëneel yi moo ëppa like comme li ci nekkul ngëneel maanaam advantage yi moo ëppa comme si loolu mujjee wax noonu comme affaire yi maa si am xaalis wala aw ma si xaalis nii yo sa bopa Bakary Mo Ndiaye nii rek ya ngi ya ya nii rek ya mo semi la pousse nga lay naka buma ma loxo way xam nga man sañu mala legui legui léegi tamit umi af ma seigne na li fi naka lay puusal ma way ñu bëree bëri mom sa legui dañu am di sax wala ya ñu am dara sax programme sa ñu am puusal ma way man ma lay dee caay dara moom wax dëgg yàlla yàlla moom awa si dara moom di wa sawdi rek de parce que man admin sa boy bëri e nañ de parce que waaye parce que ay combo sa ñom bindu ko kon mu na fay ko ñom bindu ko admin lañ ñom Ibrahima Diawo atogomens ado ado ado kids ay ñeneen ñeneen Sana Sarr tamit yow Sana Sarr sax nga ko waa Sawt te man Sana Sarr yaakaar naa koo xam nii rek de waaye tamit comme pej wi sax mu gën a tax ñu nekk a waay waaye boo dee Sana Sarr moom ne ko waa Sawt moom yaa ngi gis loolu waaye comme man comme ku ma xam naka xam lay samba o lay rosi bu baax di nga ne lay moom naka lay bu bañul la man fu nekk lay du ko bañul place yi lay vuyee fu nekk lay du ko waxtaan soo man daal li naka boo ko kii daal pour bañul ah, ko boo daal li moom pour ñëpp la moom team bi moom xam naa ne gars yi dañuy use tool boobu rek xam nga waaye su ma nekkoon tamit keneen tamit su fekkee ne xam nga rek lii comme li ñu doon sala su ma nekkoon keneen tamit comme an yeneen ni xam nga rek ma mun naa see gis ne waaw comme lii dama a bokk dama si war a am wala xam nga soo loolu yi sala comme loolu yi sax kenn use tool tamit xam nga soo ko yóbbu ko tamit mun na laa fay waaye man setuma si loolu ma ne gis daal lii pour Banjul la ñëpp si bokk daal te boo waa Banjul ñoom team bi fu mu dooree comme Bathia comme Ndoye dinaa ñëw fii nii train every time so time boobu man maa Bathia fi daan nekk sax comme Ndoye ñu ngi nekk Ndoye yu ndaw dinaa ñëw pour train every day te time boobu tëjee ko leen daan train so ma ñoom Bathia ñu daan train waaye waaye after benn time la ñoo feeñ tamit ñoom ñoom ñëpp ñoo bokk si xam nga so gars yi yóbbu team bi third division team bi egg second division after mu am ay four years sama or three years second division noonu la eggee fourth division waaye daal moom moom waa comme waa bañu daal man ama si dara dama si bokk nii rek moom team bi moom ma si bokk rek affaire yi humanité nag la mom. xam nga rek comme légui légui di nga gis sa dikando wala sa lifin xam nga rek nga nga bëgg jappalé comme sa last time mu ngi ni bo dafa am naka wa programme am lopitaan naka sa lifin mo kool ma environnement légui tamit am nañ comme benen usine fa boka bokka bañu sa am sama bàññul boobu janga la janga Fatou droit Lotwa Dinaado Fatou Dinaado so man da su yo laa dox moom loo xam ne daal dafaa jëmale bañu kanam adu waa bañu kanam man man da su yo la loolu rek xam nga waaye si loolu si benn xale la dooree woon Mohamed soo bee boobu dama ew woon ma gis bi nii soo ma siyaa nag ah xale bi comme dafa amoon cancer nii waaye adi en ñu ngi ko dimbale nag ba mu xaalis bu bari booy waaye ñu am xaalis bi nag soo ba dee mu war a defee nag day foofu loolu la war a dee nag waaye jooy xaalis bi jox ko papaam papaam nag naka waaye jëla si kër te papaam comme xaalis bi koo joxee pour waaye noonu loolu def tamit moom si xaalis bi jëlee na si moom agressif ah, naka fu la doyee moom. su la doyee moom bu des ibe pej bi. benn cefe benn jàngala woon nii Fadou Samba waaye ren naa mu ngi naka Sénégal moo solee moom ma desoon mu ne waaye nañu ah, naka créer livin comme Fadou Son nii xam comme temps yi weeru ñu toog ay iftar ni wala ndogu nii yóbbu ko si livin booy yëpp a si jàppoon ñoom ñoom ñoom Saalum ñoom Adi umi bi dee ke ñoom umi fii feneen laan moom ak ñoom Fadou Ndiaye esta xam nga ñëpp a si jàppoon moom Fanta Naka Sidibe nom ay suma sta bi dawa. tay mo no wa no def naka toxando ndogu yobu ko ci jaxay jaxi bañu yeb len dem muy afday la ba dal dem senegal Ad fele ini bes dayo tamit fu brasil len dem dal lolu dafuma dara ludut like diko rafetlu you know di content si bu baakha baakha because ku o si humanity comme si humanity real work si xam nga rek koku bugalu la dara lu xam nga rek lu baax you know ko di suma sandi gi ndjay xam nga gi yow sa koñ maa ko nuyu bu baax di ko you know comme mom, mom, bokk na si ñuma gëna motivate comme si ñuma ma gëna inspire pour may reddoo si affaire humanity like so gisé comme comme naka lañ ko very wéri koor bi yépp wéri koor bu bu passé ni yépp ñu ngi si doon dox understand nga di dem dem nañ almost cover nañ Greater Banjul area bi understand nga di dox si affaire humanitarian bi xam nga comme di dem si iftar di di di di di share ay iftar naka lañ ko waté si si l'hôpital bi understand nga luma la wax yep, waaye yooyu noonu yëpp xam nga tamit soo nekkee comme di mag nga gis ay yenn brothers yoo xam ne like you you are so attached to them understand nga yaa ngi miinantee ñoom nga gis because dem nga ba xaamee because dem nga ba jeexal high school ak yooyu noonu so di nga mëna différencier lu bax ak lu bon xam nga so yena <coughs> yena nit ñi yena nit ñi so leen gisé xam nga ñuy dox ci yena yi so ñuy dañ la day inspire understand nga so affaire yi humanitarian wa di nga ne yalla man dama si dee sawar di ci dé dox xam nga comme tamit di gërëmaale suma ben sister bo xamné wala suma yena sister yo xamné like xam nga tamit su la nit ñi olu understand nga jox la yena a yi xam nga surtout ay affaire yi xam nga rek xaliss xam nga ak yoyu nonu so du ma ko dee tayal di ko dee waxee anytime xam nga so jox nañ ma comme yenn ah, jox nañ ma yenn tax yoo xam ne baax lañ dee yónnee xam nga xaalis yu lay jógee comme si diaspora bi ñu ñëw seen ko fii understand nga ma dem leen ko and then after ñoom liñ ci dijaat yëpp waaye yëpp du dee nekk dara lu dul saraxe ko dama nga jox ko néew yi doole yi understand nga an ma dem def ko so mooy kenn ki mooy aji fanta jaase moom mu ngi dëkka Australie am ak benen lady bi mom mu ngi dëkk fi am mu ngi dëkk da fi am Fatoumata Jawara so mang leena nuyu ñom ñaar because nekk tamit sula la óolu tamit ba xam nga rek ba jox la yene fa job jobi xam nga ak yenen ci station xam ñu ci si diaspora bi comme dañ la recall dila la néemeeku dila la because ñu ngi gis yene social work yi nga def xam nga comme ñu comme anassar anassar bu bu UK suma sédel bi xam nga so ñooñu comme dañ la dé dañ la dé dañ la dé gëna sawarlo xam nga dila gëna inspire pour nga def mo xam nga dila encourage understand nga affaire yi social activities comme bi ma gisee ñoom bi ma gisee ñoom ñoom laay xam nga loolu dafa nekkoon comme lu rëy si man soo weeri koor boobu noonu xam nga weeri koor boobu noonu ma gisoon leen ñu créer waa gars yi waa Banjul yëpp ñëw di ko doon defee South fii waaye biñ ko def South fii tamit pour woon la how diverse it was nekkoon jumaay Afdaye rek wala South rek lañ ko def because maa ngi fàttaliku demoon nañ ba Tabaco Road so Tabaco Road understand nga Tabaco Road ba moo nekk pôle to pôle bi yaa ngi gis demoon nañ central demoon nañ Independence Drive si jumaa bi ak yooyu noonu xam nga so lu nay sol la understand nga comme daf laa woon ne la tamit Gambia in wala xam nga wala Banjul as a yow as a city ñun ñëpp dañ bokka ndey bokka baay understand nga ñun ñëpp naa fàttaliku yow bi nga nekk nga a yong di play nga nga naan bàyyi central ñëw play si ñun si suñ bureau yi xam nga soo xamoon naa la man si laa la xamoon xamoon ne sax waa central nga after la la gëstu noo xam nga so ñun ñëpp ben lañ understand nga comme dama ko rafetlu rek xam nga rek di grémat ñi ci day contribute yépp xam nga rek yow tamit di la gërëm bu baax a ci initiative bi nga def ni xam nga tamit di la ñaanal yalla affaire yi gëna expand ak yoyu xam nga comme tamit nga gëna am inspiration tamit ngay gëna a a xam nga dem affaire yi su ko defee mu mu dox aga ci benen man yow la doon déglu man la bro man man légui sa ko rek lay xaar yow fu nekk ni am nga suma ma text nga ma kool na kool nga ma understand nga man ne la léegi saa yoo paree rek waye gisuloo ni ko yàlla yow bi nga amé suma waji rek so obviously mom daf ma call, wax mako rek mané graw mën na nek bena cause lay man ma mom like dañ dé dañ dé overlap dossier yu bari bari xam nga suma suma way la xam nga bari ñoo bokka team understand nga wala bokkatuñ team ah walidan ay wa Banjul ah, yo way wa fan walidan nga on wa Banjul ak walidan fi laj na tuti ma ree xam nga rek gay am chance rek rëcc xam nga way Banjul dafa nice you know so da nga gis ni tamit comme nekkuna tamit xam nga rek dañ xawa bias wala dañ xawa yéena yi moo ko comme man Walidan bi moo ko support xamoon ne affaire yi waa Banjul am na understand nga noonu tamit dañ na balaa ñëwaat ne tamit xam nga comme support ñu yi combo ak yooyu noonu. a affaire fondation bi tamit booy ñu ngi am beneen fondation bi tamit man dama fàle woon boobu sax ay sa fondation la tudd waaye boobu mooy naka mooy naka boobu mooy lifin bi waaye siamaan bi boobu laasee lañ ko lifin moom comme dañ am naka ci di wax suñu def ñun comme wédekool bi moom demoon nañ baay ay Brikama sax moom dem nañ Brikama dem nañ naka bu liñ kamoon tamit ñun moom naka si yoolee la dox moom ñun moom yoolee rek lañ bokk moom naka yaa ma gën a xam moom dëkk bi moom mooy loolu daal